moom bu xoolee enquête bi enquête bi pare moo yor ca gul gu yëba xool ba xam dafay sàkko ñu dindi seen immunité parlementaire waaw wala déet te procureur moom bu jàppee ne war nañoo dindi immunité parlementaire ñaari député yi procureur day jokkoo ak procureur général cour d'appel bu Ndakaaru procureur cour général cour d'appel bu Ndakaaru daal di jokkoo ak ministre bi ñu dénk wàllum justice ministre bi ñu dénk wàllum justice moom tim daal di bind ab bataaxal jokkoo ci ak waa assemblée nationale Moustapha Niass Niass Koumba Abdallah na waaw kay loole nag la ñuy xaar jamono ji daal la ñuy xaar dara maanaam ab bataaxal boo xam ne tukkee na nag ci ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum yoon ci réew mi yéen a kaay gi di Walf Fadjri ak Le Quotidien nee na nag pataas bu tàng bi Moustapha Niass daan koy jëla jox ko maître Malick Sall mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum yoon ci réew mi waaye moom Moustapha Niass njiitul assemblée nationale daan nay dalal xel yi nee na nag en tout bi daal bu ñëwee ci seen loxo danañu ko traité daal comme ni ko loi yeeg règlement yi maanaam boo xam ne danañu ko ci def yéen a kaay gi di enquête ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci di maître Malick Sall muy wax jëm ci mbiru Seydina Fall Bouga nag Bouga Sall moom dafa sàkk woon li nga xam ne mooy ab bàyyam néggandiku ab liberté provisoire juge d'instruction bi nga xam ne moo yor dossier bi daal di koy may ab liberté provisoire waaye nag loolee tekkiwul ne dañu koo bàyyi ginnaawam bandang ndax ba léegi enquête bi ma ngi wéy te juge d'instruction bi nag moom ci boppam bu jàppee ne mbir mi dañu ko war a àtte ko bu jàppee leneen tamit loolee mooy am moom maître Malick Sall nee na nag nekk di wax waxu caaxaan rek la ñuy wax yéenekaay gi de La Tribune ñu xëy fekk fa collectif ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag nee nañu bu dee nag am na ñoo xam ne daal waxuñu fi lan wala wax nañu lépp ba mu des l'essentiel mooy assemblée nationale ak ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci réew mi ndax nag collectif ñoo lànk ñoom nee na daal li nga xam ne moom lañ doon xaara ci mbiri député yi ak mbiru Seydina Fall bu ko sali maanaam nag yoon def liggéeyam ba sa cëppaandaw ga te nag ministre bi ci boppam maanaam moo war a déterminer wu ngir nag yoon am ci mbir mi yéenekaay gi de La Tribune nee na nag lu jëm ci wàllum trafic certificat passeport diplomatique yi ñoo ngi nag jëm nag ci ay sulante mboo te ci biir assemblée nationale askanu Sénégal nag nañu xaar bu baax a baax a baax mbirum trafic passeport diplomatique yi daal ñu tudd ci ay kilifa yoo xam ne maanaam loxo nag dina dar gémmiñ ndax nag dil bi ma ngi commencé ci atum 2013 yéen a kaay gi di réew mi bàyyi mbir moome nag wax ci lu jëm ci mbirum Fatoumata Ndiaye mi nga xam ne moo jiite woon Fouta Tampi te nag moom Fatoumata nee na daal léegi Fouta ma ngi neex ndax Macky Sall ma ngi liggéey yéen a kaay gi ci Demba nee na nag Macky Sall maanaam ñaari mbir la yor Macky Sall daal da koy contre maanaam nag mu neexal la jox la ci gâteau bi jox la carotte ngay lekk daal di noppi mënoo ko nag Macky Sall génn nag yat bi daal di sa kaw loolu moo am ci mbir mi nag ndax Fatoumata Ndiaye mii daal jàpp nañu ne Macky Sall nag def koo jox carotte bi daal mu lekk daal di noppi ca geneen wet ga nag Bougane Gueye Dany mi nga xam ne maanaam nag nangu wuta noppi moom état bu Sénégal daal nay dal ci kawam andil ko nag ab boo xam ne jege na ñaari milliards Assane Samb ne loole nag boo muytule dal mooy entreprise bu tëj te nag Macky Sall moom écrasé daal ay adversaire ama man na ko lool li nga xam ne nag moo jaaxal ñu baree bari am na ñenn ñoo xam ne daal dañuy critiquer Macky Sall waaye bu ñu jekkee-jekke dem sa Macky day bett ñu baree baree bari xaw ma fan la Macky Sall di jaar ak ñoom gis nañ fi sa Seck gis nañu fi Cheikh Tidiane Gadio gis nañ fi Babacar Gaye gis nañ fi ay Tall Sall yéene kaay gi ci xalima ak Assane Samb di réew mi quotidien nee na nag réew moo xam ne nee nañu dafa am démocratie dafa war a am opposition waaye loolee la Macky Sall nag bëggu Fatoumata Ndiaye mi nga xam ne moo jiite woon Fuuta Tampi gars yi dal nañ si kawam bu baax baax am na nag ñuy wax ne ñaari oto la ko jox aku kër yéene kaay gi di l'info ñu fekk fa Baye Niass moom nag membre fondateur la ci Fuuta Tampi nee na nag ki nga xam ne mooy ministre bi ñu den wàllum intérieur ci réew mi Antoine Diome moo jox nag Fatoumata moomee ab oto yéene kaay gi nee na am na daal ay leesu xula yéene kaay gi di enquête xëy di ñu xibaar naan ñu kuréel gi ëmb activiste yu Sénégal ñoom démb janoon nañu ak tas ko du xabaar yee nee nañu nag ginnaaw màggalug Tuubaa gi daal wàccaat ci mbedd mi ñoom caat démb def nañu conférence de presse nee nañ nag seen marche bi nga xam ne tere woon nañ leen ko te nag takk der dal ci seen kaw ñi nga xam ne arrêté woon nañ leen seen puce téléphone yi daal dañu koo dindi dañu koo dindi ndax nag ba ñu leen jëlee yóbbu leen si commissariat yi ña ñu jot a jàpp dañoo nangu woon seen téléphones yi waaye nag ba ñu leen di delloo téléphones yi ñoom daal gis nañ ne puce yi nekkoon ci seen téléphones yi dañu koo rocci journal bi di record nee na coupe du Sénégal final diggante Casa Sport la ak Jàmbaar journal bi nee na Bouna Sarr ak Bamba Dieng mi nga xam ne mooy